di nuyu ñi nga xamante ni tey moom lañu fekk fii case des tout-petits Kër Xaadim ki ñu si dalal mooy seen directrice bi ñu ñëwee gën nañ am cofeel si li nga xamante ni moom lañ doon wax parce que ku ñëw fii xam ni kat euh, ñu jar a jàppale leen ñoo xamante ni euh, ñooy jël seen i propre initiative euh, créer seen case des tout-petits pour que ndaw ñi am koo xamante ni foofu lañ formé donc ku gis rek euh, le mouvement ci Jotna na xamni mom ci dynamique sociale la nek xol euh, couche yi nga gën xamanteni xamante ni ñoo nekk si ay jafé jafé ñu indi suñu apport euh, du ma ni mën nañ ñëpp lépp rek mais à chaque fois dañuy jëm te li dafa bokk ci développement parce que créer ben cadre bo xamanteni ay xale yu ndaw ñom ñu nga ci accueillir pour di leen former pour jangal leen donc je pense que ni lii bépp Thiessois rek war na ci mëna japp motax ma tax maa ngi woo waa Thiès yëpp tous les responsables euh, politiques les acteurs de développement nous savons qu'il y a fi tey benn centre bu tudd case des tout di ils ont besoin de soutien ils ont besoin d'appui ah, en tout cas man Ablaye Dièye jël naa sama engagement ni vais les taxaw je leen jàppale ba ëllëg ñu de si case des tout-petits yi nga xamante ni eh, ñu ngi Thiès mais aussi tey bu ma doon ñëw dama ma ànd ak samay xarit eh, collaborateur le président du mouvement Thiès sa kanam Pape Doumbouya Momit, it loolu la yëngatu donc it moom du ñak dina ci def participation parce que bi ko xamé man ci limay dox rek mom lay dox mais aussi le président Thiès kanam monsieur Khadim Samb aussi ñëw na accompagner ma si loolu aussi dama samay partenaire nga xamanteni ñomay ñoo may jàppale liggéey bi parce que ñoom li lañ ñor rek mooy dimbal li li nit ñi sont des partenaires étrangers yi nga xamante ni fu jafe-jafe nekk rek dañ fay bëgg a ñëw indi ko donc je pense que tey occasion la ñoom ñu ñëw gis situation bi pour que ñu mën a am du courage pour nous accompagner mais aussi tayit it def nañ euh, ay distribution de fournitures scolaires bi nga xamanteni chaque année rek euh, dañ koy def pour les élèves di gën a ñaax euh, suñu élèves yi ñu gën a jàng ndaxte ñoom ñooy avenir ëllëg donc ñun dañuy ñëw rek indi suñu doole li nga xamante ni mën nañ ko pour ñoom ñu mën a am ay moyens yoo xamante ni dañ si mën a jàng tranquillement éducation dafa am solo donc fépp foo xamante ni gis nañ fa ñuy former ay xale askan bi war nañ leen mën a taxaw di wax ni aussi sunu ñi nga xamante ne ñooñu la ñu dénk ci collectivité locale dañu war a sensible par rapport à cette situation donc nag waa Thiès tey yéen a war a mën a xam ñan ñoo leen yi taxaw ak ñan ñoo leen dul taxaw mooy ñi nga xamante ni ñooy samay collaborateur jàpp si liggéey bi bu dul lii mën a am donc man fu ma mënul yegg rek ñoom dina jafe-jafe ñoo fa nekk mën a ñëw indi si ay solution message situation politique à Thiès parce que tey gis nañ ni cees bëri na coow fan yi yëpp yéen a ngi dégg ay sorties ku nekk di wax euh, tel leader ou tel leader donc je pense que leur est de la fédération en tant que Abdoulaye Dièye ku ma xam si jàmm

quel que soit notre parti bi nga que li ñu ñor rek moy un Thiès émergent un Sénégal prospère ñëpp benn lañ jarul xulo jarul ngaayoo jarul wax ju ñaaw j'appelle vraiment à la fédération à l'unité pour que euh, li ñu bëgg ñu mën ko am